mboolem kër sañ sëñ naa mboolem turu daaru yëpp ah ñooy nuyoo ah, di leen sant bu baax te leen di te itam di leen xamal ne pas-pas bi ñu bokk mooy li nga xam ne mooy waral taxawaay bii kenn ku ne laxasaayu doonub daayira te fa nga nekk que biir kër ga nga ne ak kër kenn ku ne ci kër ga nga ne ak sa morom nekk liggéey bépp benn la ñun ñoo ko waxtaane tënku ci yenn kàddu def ko muy yenn kenn ku ne am fuñ la féetale nga ne fa waaye liggéey bépp kenn la ki ñu koy liggéeyal kenn la muy borom daarul moxti sëñ di ko jaare ci kër sëñ Mahamadan yàlla boole na loo xam ne nag dan ko mun séddoo te kenn mënu ko bàyyi sa muy sëriñ bi sëñ Mahamadan lanu yàlla boole te duñ ko séddoo te kenn mënu ko bàyyi sa morom te koo ne bàyyil mu bañ kon bokk rek lañ koy def loolu moo waral rafetal gii nu nekk ñu ne ci di ñaan nag ñëpp fekk na ci kenn ku ne nga namputa ci sa njaboot woo ci say mbokk woo ci say taalibe say mbokk say xarit say dëkkandoo te xam ne leenu yàlla boole te mënu ko séddoo rafetal rek moo ci moo nu ciy dimbale muy sëriñ bi ah loolu nag ci lañu soññ mboolem dayre ak fu dayre mën a nekk ñoo ngi leen sant ci li jàll di soññee ci li jëm di xam ne kër gu ne la fa nekk ña fa nekk ko fa def ñoo ko fa def waaye kenn du jógee fenn dinu defaratil kër sëñ Mahamadan gi kër sëñ Mahamadan gi ñun ñu ko seex naan xam ne lu fi ne noo ko fi def lu war a nekk noo ko fi war a def kenn du jóge fenn dina ko dinu defal si dara kër sëriñ boo fi gis la fa ne ña fa nekk ko fa def te kër gii kat wax dëgg yàlla maanaam ki nga xam ne moom la ànda di liggéey ak moom di ko liggéeyal desuloon gannaaw kon nan fexe bu des gannaaw lépp lu ne ci kër war na am fii kon nan xam ne kër sëñ Mouhamadou ngi lu fi ne noo ko far def kon noo ngi soññ mboolem dayre fu ab dayre nekk ñi ngi lay bu baax a baax a baax a baax a baax benn dayre ndax saay gi nga xam ne moom la sëñ digal sëñ Mamour doon di ko digal sëñ Muxtaar ñëw tege ca ko ndigal loolee yeesal ko yokk ci ay ndigalam lépp gën a rafet ndigal loolee nan ca jàll yàlla nañ ci yàlla dimbale noo ngi leen di sant bu baax noo ngi gërëm ñëpp noo ngi gërëm fépp fu nit mën a jóge nag ba ñëw màggal si fii ak nga amoon yéene ñëw te mënuñu ak ku a doon lépp la nga xam ne suñu borom dégg na ko ci jëf ju baax jëf yi ca gën a kawe tuyaaba yi ca gën a ko suñu borom defal ci ci jëf ji te defal ko mboolem jullit boo xaye bàyyi ko nga fa nga jóge te te yitte yëkkati la li suñu borom dégg ci tuyaaba jëf nga xam ne ca ña doon xare badar ba fii ak la ko jiitu ci lu baax fay suñu borom di fay yàlla nañu ko suñu borom fay ci lii fay ko mboolem ñi ñëw ak ñi amoon yéene ñëw fay ko mboolem jullit yëpp noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di soññee bu baax a baax a baax di gën a soññee rek di gën a soññee rek na nan góorgóorlu bu baax a baax a baax te jàpp ci li nga xam ne moom lañ suñ moom lañ moom lañ suñ booleel noo ngi ñaan nag ci barke Serigne Touba sëriñ Mokhtar mi nga xam ne moo nekk ci bopp njaboot gi noo ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moo ëpp doole lépp mooy borom lépp noo ngi koy ñaanal lépp li nga xam ne yéene na ko ci diggante yàlla ak yonente bi ak Serigne Touba ak sëñ Mouhamadou yéene ko yàlla na ko ci yàlla jotale lim yéene jullit yi yéene ko taalibe ci diggante yàlla ak yonent bi ak sëriñ Touba ak sëñ Mouhamadou yàlla nañu ci yàlla jotale noo ngi sant ñëpp noo ngi gërëm ñëpp noo ngi jégalu kàddu bu baax a baax dañoo xaw a bett noo ngi jégalu bu baax yàlla na yàlla def tawféex bu baax baax sëriñ Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ngir jot suñu ay vidéo di ngeen di abonné fii ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production ngir bës bi bokk ci programme bi national international